asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sadi lisaani nay wir janaani safi amaani wasil baraay barkeb seexul xabib mbokki lu xew tv seen waxtaanu juróomi minute safar bëccëg gu ne ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe abdoulahat aaw démb maa ngi tolloon bi ma Mor Anta Sali wàcc ci liggéey nee naa leen nag bi Maam Mor Anta Sali ne ci jamono sëñ Tuubaa benn itte mooy jàng ak jàngale waaye bi Maam Mor Anta Sali wàcc ci liggéey la joor yónnee délégation pour ñu wax xaadim mooy taxate kala jiite ko ca Mbàkke Kajoor la la jor bëggoon mooy waa waajuram féete woon di Maamar Anta Sali sëñ Tuubaa féete ko foofu doon ab attekatam sëñ Tuubaa lam leen tontu mooy jomm naa sol sama dàll dem dem di taxaw ci benn buntu buur man Seexul Xadiim ndax man Ahmadou Bamba lu xam-xam ak diine aw ci defar aw ma ci yàq xaalul yàkkan ni waa bi salaatini tàngus jawaa isal tox ni fa qultu hasbi rabbi wartafaytu bihi walastu raadiya xayral xilmi wa diini xam-xam ak diine rek laa gërëm loolu xam-xam ak diine gërëmuma ko man Seex Ahmad Bamba Xaadima Rasuul nga xam ne ca booba jawaabu xaadi booba mag ñëpp ni ko da ngaa nekk gone ndax booba fanweeri at lay doog am booba jamono daanaka wala yu mat yu manqué tuuti ba nga xamante ni mag ñi naan ko yow day lii la la jot tànn bëgg la koo def bu nu ko tànnoon ñun duñ ko sax gëme ñun ñëpp mu tegginu am yaakaar cee la ko sëñ Tuubaa xamal leen ni man day pangatu àdduna gi duma ko jëndee sama diggante ak yàlla ndax jox saa bopp la joor ni ma ko mën a méngalee mooy fekk ab miskin boo xam ne day tàll loxo rek di laaj am ndimbal noonu rek la mel ndax am ni ufawilu axwaal yi li man xajazu an haali ma ajjal masaakin yi daan di pangatu àdduna gi du ma ko jënde mukk sama kër këru yamal am aw kay fa yëpp xasu nii on bul otaan yi la jiwaari man duurum rawdu sayaatiin yi daan ni man Ahmad Bamba Xaadima Rasul su ma amee aajo yàlla rek laay tàllal loxo waaye su ma jàqeet yàlla rek lay woo in kuntu za ansarin aw kuntu za watarin daawatu zal xaymi qabla ra'i wa siini wax wal aynu lazi laa say ah yootisowu wa wal mu kawinu maasa aya takwini nga xam ni ngëm yàlla gi sëñ tubaat teel a am nga xam ne ku doy nu la jor booba jamono yilif kajoor gépp ñëw ni la dama bëgg nga doon sama attekat nga man ko woon ginnaaw ngir bëgg yàlla ngir bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne seexul xaddim boobu noonu la nekkee ci Mbàkke Kajoor nekk ba tey ci jàng ak jàngale ba bis jot Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñ ko ni ko nag rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim bi daf si faxat keroog la yoonu murit mën naa laax sosu waaye fan la yoonu murit sosoo Mbàkke Kajoor la yoonu murit sosoo ndax yonent bi saa sallam moo ni ko bul yem képp rek ci njàngale waaye del boole jàngale ak di yare booleel jàngale ak ci yare ca la waxee woon wooteem bu rëy boobu moom Seexul Xadiim mag ña tàmbale joxe seen bopp bokk na ci sëñ Adama Gueye sëñ Massamba Diop Sam sëñ da Abdourahmane loo ñi nga xam ni bokk na ci ñu njëkk ci Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul nga xam ne Serigne Touba bi mu ànd ak ñoom Cheikhul Khadim tàmbali leen tarbiya ci himma himma googu nag mu yittee mooy fexe ba marale seen xol ak yàlla marale seen xel ak yàlla fun toog di jàmm yàlla sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di leen wax ngëneelu jóg guddi la li ci nekk di leen xemmemloo melokaanu góor yàlla yu njëkk ya di leen wax seen i melokaan bokkoon na ca moom Cheikh Ahmad Bamba melokaanu góor yàlla yi bu ko daan tudd ngir di soññ ñi nga xam ni mooy Cheikh si àndoon ak moom naan leen ñooñu kat bu guddi jotee dañuy wan lal yi ginnaaw wan seeni soxna ginnaaw ba noppi jublu penku di di jaamu yàlla ba bët set jot ñooñu nag mooy ña nga xam ne alquran tagg na leen di tatajaafa junubuhum hani madaajihi yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan noonu la Sëñ Tuubaa yare woon mag ñi naan ñooñu nag mooy ñi nga xam ni saw yansawna layla wa sodaafi qiyaamimu mustaanisiina bi askaarin wa ayaatin ñooñu mooy ñi nga xam ne bu guddi musaana jot dañuy wan ginnaaw seeni lal taxaw di jaamu yàlla ñu ñooñu góor yàlla waaye ñoo ñooñu Sëñ Tuubaa di xemem loo seex yi ba tey melokaanu góor yàlla yooyu nan bokk na seeni melokaan sumtun foo leen daan fekk dañuy noppi wu juwoon nekkoon ñu ñamuy xiif tawilun boodoo saarun nekk ñoo xam ni fu ñu toog daawu naw seen bopp foo fun fun mën a nekk rek lu ñu def seen diggante yàlla dañ koy xeeb ngir xam ni yàlla moomu maa indakum yan fadu wa maa inda allaahi xayru baaxin kooku la mu yor lu jeex di leen tarbiya di leen tàggat di leen yar ci li nga xam ni mooy melokaani dëgg-dëgg murid saadix muy tuubaali xabdin murid saadixi lahum li xidmatin aw bi xobin aw xadiyar dëgg-dëgg taalibe mooy bëgg sëriñam te muy dëgg ci yow lool di liggéeyal sëriñ bi te ak dëgg lal ko ak di joxe addiya te lépp ak dëgg lal ko seexul xadim noonu lay doon yaree mag ñi foofee ca Mbàkke Kajoor kon ñu yemale ko foofu rek ci vidéo bi cinq minutes bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu